6h sur RFM, l'on est le mercredi 12 février 2020. RFM matin, ça démarre. Et l'on débute par les informations. Nous accueillons dans ce studio Mohamed Alimba pour le Flash. Bonjour Mohamed. Bonjour Georges. Mesdames, Messieurs, bonjour. Affaire du maître coranique de Wakam. La mairie entend se constituer partie civile. Une annonce de son premier magistrat, Samba Bakili Diallo, qui dit attendre de se concerter avec euh, son conseil municipal pour le formaliser. Il entend également soutenir les parents des victimes dans toute action judiciaire. Extrait de l'entretien ça a été une mauvaise publicité pour la commune paisible que nous avons, la commune de Waka. Ça a été une chose vraiment très, odieuse. Ça a fait mal à toute la population wakamoise. Un peu, je dirais malheureusement, notre avocat est en mission. Il n'est pas présentement au Sénégal. Je voulais demander à notre avocat conseil, est-ce que si, est-ce que la commune peut se porter partie civile? Si c'est le cas, la commune va se porter partie civile, parce que l'image de notre commune a été terminée nous. sommes en train de prendre toutes les mesures pour accompagner les familles qui ont été victimes de ce maître. Financièrement et au niveau de la justice, la commune prendra en charge en tout cas tout ce qui se doit pour que justice puisse se faire. L'Espagne a retrouvé 69 migrants perdus pendant une journée dans une embarcation irrégulière. Elle avait quitté le Maroc après 12, avec 12 femmes et 5 enfants. Le Maroc avait reçu 140 millions d'euros de l'UE en 2019 pour combattre l'immigration irrégulière. Fatigue les Yakartamen ne décollèrent toujours pas après la mort d'un des leurs qui aurait été tué par la police. Nouvelle manifestation en début de soirée hier. Le corps de Lamine Koïta et est retourné à Fatigue. Il sera inhumé aujourd'hui. Les résultats de l'autopsie ne sont pas encore rendus euh, publics. Euh, au Soudan, les dirigeants ont accepté de livrer l'ex-président Omar el-Béchir à la Cour pénale internationale pour répondre euh, aux accusations de génocide et de crimes de guerre, qui est une décision qui ouvre la voie à l'envoi de Béchir à la haie pour être inculpé. Le président de la Fédération sénégalaise de football réagit au scandale sexuel à Dakar, Sacré-Cœur. Augustin Senghor condamne les agressions sexuelles dont auraient été victimes les jeunes footballeurs. Leurs bourreaux présumés ont formé formateur a été arrêté. Georges. Merci Mohamed Alimba pour ces informations. 2026 heures euh, daanaka 4 minutes euh, jot Hibari xibaar yi lañ koy dooree comme ni ñu koy defee saa su ne di dalal Mamadou Mohamed asalaamaaleykum Mohamed. waaleykum salaam alaaji Georges Déthié Diop yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax a baax. alhamdulilah maa nuyu bu baax a <laughs> nuyu waa Sénégal rafetlu. <laughs> yow Ndiaye ñoom dañoo tëradi. ah déedéet. wàcce rek <laughs> bul tontu. jéggal naa la waxi fajar moom maa ngi leen nuyu bu baax Alaaji Georges maa ngi nuyu waa Sénégal di rafetlu ni ñeewoo ak ni ñaan ak rajo Futur Média 6h04 jukkib xabaaru suba si dooree koog mbirum euh, borom. daara ji ñu ne ma nga ca wakam te ñu ne dañ koo jàpp muy def na ko sudul noonu ci kawi xale loole mairie bu wakam nee na du ko bàyyi mu sedd dana topp ci ñi topp mbir yi ca yoon doon ca partie civile ki ko xam ne moo di Samba Bathily Diallo maire bu Wakam ndax gis na ne jëf ju ni mel dafay gàkkal der bu boobi de commune te it bokkul ci li ñu aadoo ak li ñu cosaanoo te eh, du lool it wares na ko bàyyi mu jàll Samba li Diallo ñu teew teewluy kàddoom dañ koy def bu soobee yàlla ñaar moo main a am yoon may ñu ko ñu dugg ci yoon may ñu ko ñu ànd ak parents yi assister leen ñu dem yóbbu jàppale leen ci ci ci affaire justice pas loolu sera fait en tout cas pour les parents yi nga xam ne accepté nañ la collaboration li ma wax tamit li ma def mais malheureusement sama suñu avocat conseil dafa tukki pour que ñu xam lan la ñu yoon may pour ñun commune bi ñu ñu def ko ci loolu est ce que ñun commune bi mën nañ porter partie civile pour accompagner en tout cas parents parents yu xale yooyu ñu def loolu pour que yoon ñu mën ko appliquer avec toute sa rigueur mais ñëwagul bu ñëwee bu fekkee yoon may nañu loolu bu soobee yàlla yàlla euh, dinañ ko def turu wakaam fépp te niñ ko déggee doon nu rafet ñun waa wakaam yëpp am si lu ñu naxari naxari naxari naxari réew Espagne Espagne gis nañu lu toll ci juróom benn fukki doomi aadama ak juróom-ñeent yoo xamante ne ji dañoo mbëkkoon gaali looco yi doon euh, dem foofe mu di immigration clandestine Maroc la ñu jóge woon ca googile gaal gis nañu ca fukki jigéen ak ñett am na juróomi xale yu ca nekk fàttali leen ne euh, ci atum 2019 euh, Union européenne jotoon naa jox Maroc lu toll ci 140 millions d'euros ngir jàppale ko ci xeex gi ñuy xeex mbëkk mi mu di tukki bu tegewul ci yoon diwaanu Fatick li ñu jëm dawalkati Jakarta ya foofee ba léegi tey la ñu gën a mer gannaaw ba seen benn naataango faatoo te ñu ne waa police ñoo ko faat eh, ay manifesté yoo xam ne doon nañ ko amal démb ci ngoon fàttali it ne Lamine Koyta di xale bu góor boobee faatu am néewum dellu na ci Fatick ginnaaw kon bi ñu doon amal li nga xamante ne moo di autopsie bi tey jii kon lañu ñu ko war a denc moom Lamine Koyta fàttali ne autopsie bi ñu doon def ci li ko tax a faatu ba léegi résultat ya eh, siiwalaguñu ko. président fédération Sénégal bu football di Augustin singor aduna jëme ci li nga xamante ji mooy jëfi saay-saay ja xew euh, école de football Dakar Sacré-Cœur mu ñaawlu ko bu baax a baax euh, di ko xamante ne daal nee nañu ca formateur yi gone la bokk waaye da leen saay saaye euh, fédération bi ne daal mi ngi toog déglu ana yoon kon lan la cay dogal waaye jëf jooje moom Augustin singor président fédération Sénégal bu football ñaawlu na ko biti rew lañu jëm jéxalé fa jukkib xabaaru suba si Soudan kilifa ye fofé nopi nañu ngir Omar El Béchir mi jité won rew mi ñu jël ko ju jébbal ko cour pénal international ngir dal tuuma yi nga xamné gal nañu ko ci ndoddam bokku na ci génocide crime de guerre mu daal di koy lijjanteeg waa yoon mu di dogal bo xamantene ji ci niñu ko jangaté moy dal dana moy kon li yobbu ki di El Béchir fële ci cour de La Haye nga xamantene ji kon bu fa démé tuuma ya ñu koy gàll ak la yoon di dogal ci moom foofee la ñu koy lijjante Serigne Source. jërëjëf Mamadou Mouhamed